mbokk yi image yi ngeen di gis ni mooy stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor euh, tey mooy ñaar jour yoo xamante ne nawetaan Ziguinchor wala tournoi d'ouverture bi nga xamante ne ñaar structure ñu koy amal Ziguinchor euh, dàkk na euh, muy démb di nga xamante ne moo nekkoon le 10 ñaar structure yi kenn ku nekk dafa dafa programmé journée ñëw nag ki nga xamante ne mooy structure bu ODECAM ñëw indi seen programme ODECAM tamit indi seen programme Euh, ba tax na nag kenn si ñoom ñaar kenn nangul may euh, moromam euh, journée boobu ba na tey ñaareel journée bi aussi muy ODCAV muy ODCAV ñoom tamit ku nekk indiaat programme am rawatina nag ñi xamante ne am ñi jël ay chaise dem toog ci diggu terrain bi juste pour mun a empêcher ñenn ñi ñu mun a amal li nga xamante ne moom mooy seen jongante loolu nag mooy jafe-jafe bi nga xamante ne jeunesse Ziguinchor ñu ngi koy dund si wàllum navétane ci Ziguinchor mu doon mbir boo xamante ne ñëpp ñu ngi koy ñawlu euh, parce que euh, Ziguinchor euh, benn bopp la ñaar structure yi ñëpp ko bokk kon kii ak lépp mun nañ nekk si benn structure mun a amal li nga xamante ne moom mooy seen nawetaan te jàmm coow du jib comme ni ñu ko defee woon at yële passé loolu nag la ñëpp di ñaan. na